بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزكي لبي وافتح الرب ليا فتحا مبينا لا يرى المثليا mbokk daare soppe Mahamad Ngari asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di ndokkeel mboolem ñi nekk ci daara ji seen bëgg lu baax ak seen safoo daara ji tabarakallah ak boole ko ci seen yitte yi gën a far ndax eh, yitte yi bari na waaye eh, kenn ku ne ya nga gën a far ci yitte rek di ko mën a jox sa temps waaw temps moom daanaka dañu wax ne kenn amu ko wala ñu ne sax kenn ñàkk ko kenn ku ne ya nga jiital rek moo tax daanaka yitte yi ñi bàyyi di wut tiyaabu ci daara ji di ci def seen temps di ci def seen alal di ci def seen énergie seeni coona ñoo ngi ciy jaajëfal ñëpp di war lépp noo ko bokk rek lislaam rek ko tax a jóg ak euh, yaatal xam-xam Cheikh Moussa Ndiaye mi ñu ànd ak jotaay bii di laaj ak tontu it wax dëgg yàlla mu ciy sonn di dajale laaj yi ne bëri na yitte ndax kuy jàngale moom amoo jot waaye lépp day wane ne euh, daara ji yittee ma dina yit sunu jëwriñ Seydi Mouhamed Lamine Diagne tabaarakallaahu sëriñ daara euh, di di ko dalal bu baax baax ci daara ji nuyu mbokk yëpp kon Cheikh Moustapha Ndiaye dajal na laaj yi laaj biñ ci njëkk jot nee na nit ku jaay yëfi jàmbur te joxuñ ko ci ndigal masal yow daal fekk nga otob jàmbur xëy na def ngay pexe ba jot ci caabi ja wala place jàmbur mui léeg muy am ñuy faral dem ci marché yi wala yéen kii dañ koy gis <coughs> muy gën a bëri nag ci terrain yi faral si këyitig jàmbur rek dem jaay terrain ba luy ab atem mbokk mi loolu la fuqaha yi di tuddee bay'ul fudul bay'ul fudul mooy jaay yëfi jàmbur mooy njaayum caaxaan rek léegi fuqaha yi liñ ci wax mooy su boroom ñëwee dañ koy laaj waaw lii de yaa moom mu ne waaw diw sàngam mais da koo jaay te amu ci sa ndigal mu ne waaw ñu ne ko loo ci wax dangaa bëgg nu delloo la sa maat sa yëf wala ndax xaalis bi nga bëgg a jël su ko defee bu mu ca saxal rek nu jël booba su ne man daal dama koo soxla ndax su ko jaayee duutuma ko amaat wala danaa ca sonn wala nangam kon dañ naan hee atte lislaam mooy delloowal waa ji xaalis bi mu delloo la marchandise mu jàmbur nga delloo ko borom su waa ji ah <clears throat> ah man kat yëgu moon ba mu koy jaay te bëggumoon moon bu jaay ko waaye comme xas na ko jaay ba noppi daal euh, dinaa ko mën a amaat wala daanaka sax man xaalis bi laa gën a soxla dañ naan kon njaay ma sax na dellu joxal waa xaalis bi kon daal boroom marchandise bi lum mu ca saxal rek loola mooy mooy sax laaj bi stopp nee ci seen daara mi fi ñu nekk noonu jumaa ji dafa amoon takkum sëy ñaari imam nekk fa kii ne lii mooy can gi kële ne lële mooy can gi nee kenn ki def na vingt mille mooy can gi ndax ci xaalis lañ koy xayma kële ne ko déedéet trente mille franc mooy can gi ndax ci wurus lañ koy xayma am jeneen waa ju leen xëyee waa cen can loolu can kay lu ngeen juboo rek baax na bu ngeen waxtaanoon ba juboo mu jox mille franc sax baax na muy laaj ana loolu naka la war demee waaw euh, can moom ci jamono yi ndax canit mooy jox ndaw si lu ko amal njëriñ wala lum lum lu mu waajee wala lu mu defee lu lu ko amal njëriñ moo tax jamono ji buñ ko nattee ci vingt six mille fu mu ne ni boo demee Touba ñoom seenu can dañ ne vingt six mille mooy li gën a ndaw vingt six mille waaye différence boobu ñu waxit kii na ci wurus lañ koy natt kii na ci xaalis lañ koy natt loolu it xelu na maanaam boo ko dee natt ci xaalis day doon néew a néew néew boo ko natt ci wurus mu doon lu kawe ndax boo ko doon xool ci azaka da ngay gis ne boo ko nattee ci wurus mooy or bi da nga dem deux millions yu teg waaye soo ko dee natt ci xaalis gal bi daanaka doo dem ay trois cent millions yu di mel différence boobu daanaka deux millions cinq cent ci boo ko doon natt ci wurus boo ko dee natt ci xaalisu gal bi muy trois cent mille xoolal ni mu différence yi noonu ndax danoo bokkul ay prix moo tax boo demee ci marché bi boo ne benn boo boo ne benn gramme lu muy jar dañ la wax ay vingt cinq mille jëm trente mille waaye tey jii xaalis daanaka boo doon laaj garab bi lu muy jar daanaka du weesu ay cinq cent sept cent cinquante ba mille francs da gis ne différence boobu mooy waral kenn ku ne boo natt it mu baax ndax bu fekkee dañ ne rubu dinar rubu dinaar it man kon koo natt ceeb xaalis ba ne kon ca xaalis temps lay doon kon ba différence ba day am kon jër loolu xëccoo kenn ku ne fa nga natt rek loolu am nattukaay la waaye ci jamono ji moom Touba ñoom li ñu jàpp seen can mooy vingt six mille ki nga xam ne na it euh, bu ñu waxtaanee ba juboo fekk déedéet can dafa war a am nu mu war a toll donte ne am na yeneen xadis yu ñëw irtamis wala xaata man ak yu demee noonu waaye daal ci mazhab Malik ñoom dañuy jël can ne lii lay toll li gën a néew loolu li gën a néew nit ñi nag moom foofu xam naa ne wax ndax aleyhi salaam wax na ay yoon sëy bi gën a barke mooy bi gën a yomb te loolu it bi mu koy waxee ñun yegg nañ ci jamono joo xam ne <clears throat> nu sëy yi gën a yombe mu gën a baax ci population bi ndax fu ne nii sëy jafe na jigéen ñi kenn mënta jot ci ñoom ngir ak cher góor ñi daanaka nanguutu ñoo yor kon faaw nu yombul yëf yi te kuñ joxit <clears throat> ne la wala tansawul fadla baynakum teraanga jiñ dëgg ba jox la ndaw sii te la nga def ci moom boo boo defoon ci moom cinq cent mille wala un million jox la ko wóor na ne boo amoon un milliard yóbbu ko ci kër baayam ne la damaa bëgg ngeen may ma seen doom ju góor ni ngeen ma may seen doom jigéen lànk la ñuy def kon jigéen dañ la jox joxuñ la ko en tant que yow waaye dañ la koo jox ci baatum yàlla te yàlla tuddee euh, euh, baat yi signé contrat bi <clears throat> sa digg ndaw si yàlla tuddee ko buum gu dëgër a dëgër wa minkum xalisa di loo xam ne yàlla bu sañoon góor gu ne da ngay responsabiliser benn jigéen moo tax nga gis ko fële bu dee da ngay bàyyi yàlla ne la say doomi jigéen yow laa ko dénk maanaam góor ñi ar rijalu qawwamuna ala nisaay loolu mooy lu mën xew góor moo war taxaw jigéen ak nu góor mën a góoroo nag ndax boo dee baay yàlla def na naan baay say doom yu jigéen yow laa ko dénk nga xam ne sax da dégg ci xadis mu naan ko am ñaari doom yu jigéen wala ñetti doom taxawu leen bañ mat mu kàllaf yàlla dugal la aljanna ngir lan ngir soññe ci ñu taxaw jigéen ñi su dee doo bàyyi loolu ngay boroom kër yàlla ne la sa soxna sii soo ma ci taxaw taxawale ndax alayhi salaatu salaam sax kàddu yi mujj yëkkati ci ak dundam xam ne booba euh, moom la ñuy wax euh, ci ci ci waxin conférence bi mu mujj def wala congrès bi mu mujj def wala message bi mu mujj jàllale ci xajatul bi daa nga xam ne ci la mujj dajeeg jullit ñi dajee bu tool noona bi mu waxee bay daaneel maanaam jël na partie bu mag dénk ko góor ñi ngir ñu taxaw jigéen ñi bi mu demee ba war a faatu moom sa salaatu salaam ba tëdd ci lal bi muy faatoo kàddu yi mujjee yëkkati mooy asalaatu wa maa malakatay maanukum luy loolu mooy ñaar yii bu ma suñoon ngeen taxawal ma ci julli ak ñi ngeen yilif ci jigéen ñi ndax xoolal ni julli fooree ak fi lislaam teg bis bu set mu di la ci gax nangul nga teexal ko moom mukk bi mu ko tuddee jël ñi nga yilif ci jigéen teg ko ci wet gi kon dañuy xam ne responsabilité bu maga maga mag la motax si dafa dafa foré nona motax li gëna ndaw la l'islam di wax ne li dal lum ndaw ndaw na ngeen ko toog ci tek ci loxol jigéen waaye nak li gëna mag amu dayo ndax Omar ibn Khattab musna na ci minbar ba di khutba di waxtaan ci walu cian comme li ni waxane ni di wax naan di wax ci ay boobu wa atitumu ihdihunna qintara di wax naan na tool nii na tool nii nangam seen as ndaw xam naa ko xaw a kii la tuuti nag ne sojjet ne ko ndax yaay jéema a limité xentaar di wax ne teraanga yàlla di jox jigéen ñi fii lay yem yaa naan xentaar lii moo ci gën a bari Omar ndeysaan ca woyof ga daal di ne ndeysaan Omar a ñàkk xam-xam dem sax ba jigéen di ko gàgganti ci ab aaya maanaam bëgg ko wan ko jigéen tera loo am ci teraanga te man koo jox amul limite amul dayo boo yëkkatoon avion jox boo yëkkatoon ab cité jox boo yëkkatoon ay building jox nangam lépp teraanga yelloo na ko ba yelloo lu ko ëpp waaye daal li gën a ndaw lañ wax ne mooy benn simil <clears throat> da dangay gis nag ci nii ñuy takkee say ñun daanaka aada ji daa xaw ëpp ndax da ngay yëkkate da ngay dem Saalum gis ñu ne mille la ñuy joxe can gi leneen lañ cay defaat nag ay bëyu bàyyeek ay noddkat baag ay kay tekki gura gaag ñu mën a jël benn deux cent mille xëpp ca loola te fekk li ëppoon solo moo ñu jël loole jox ko ndaw si mu mën cee def lu am solo muy teraanga ju ñu ko defal te wax nañ ne euh, liñ la jox can boo ci jëndee yére denc ko saa soo amee soxla boo ko solee loo ci ñaan yàlla mu defal la ko ndax can daanaka bokk na ci alal yi gën a set alal yi gën a lew moo tax buñ la ko joxee danga nga ciy def lu am jëmm ñaare lu barke barke lay doon ñaare boo ci investir mën naa màgg boo jëlee yére wala nangam wala sa jaada wala yooyu jënd ko denc ko ci saa soo jaaxlee boo toogee ñaan boo ne allahuma mu nangul la kon moo tax dëgg-dëgg daal aada yi ñu ciy dool bu ñu sañoon ñu jël li ëpp solo deux cent mille yi ngay sànni ceeg kay tekki guragaag euh, kay nodd ak imaam baag kay signé kii beeg nangam yooyu yëpp ñu jëloon li ci ëpp solo def ko muy can gi nga xam ne lu gàtt gàtt dana ci mën a def dara benn cent mille wala cent cinquante mille bu ñu amee benn dix mille wala quinze mille nag ñu def ci aada yooyu waaye dañuy jël li gën a ñàkk solo def ko ci can gi jël li ëpp solo nag di ko def ci aada yoo xam ne tekkiwu dara daanaka ci sëy ba laaj bi si topp nee na kii soxnaam dafa tawat yaayam tawat mu jël yaayam mu jël soxnaam yóbbu hôpital bayam na ko sa jaay ji nga war jël yóbbu hôpital muy laaj nan la war def ah nan la war def day bo demé ci fuqaha wi dañuy wax né nit ku né dal ñi yalla sant nga taxawu len sa jëm ji ci jitu bu sa jëm ji wéso sa soxna manam fekke man nga gaddu sa bop bam dess des nga nga nga gaddu soxna motax dañuy wax ni su fekke soxna mëno ko gaddu dañ lay aaya nga tak soxna ndax dañuy bañ nga lor su fekkee boo gàddoo sa jëmm jii dana des ñu ne la gàddul sa soxna soo gàddoo sa soxna mu des ñu ne la gàddul sa doom soo gàddoo sa doom mu des ñu ne la gàddul sa ñaari waajur yu ñàkk léeg-léeg nag da gis parents yi dañuy teel a débranché wu bëri na ndaw ñoo xam ne lay yéexal seen dox wala lay tax duñ mën a dem mooy dañuy focceeku ci xott nan rek seen bàyyi bàyyi ko ne léegi dootuma fay ndox dootuma fayati courant dootuma joxe dépense dootuma xotti tiyeer dootuma maanaam bàyyindi ko carrément te doot ne yaa ngi desee as ndoole fekk loolu it daanaka du du diine ju ju set ndax dañ la wax ne su fekkee say wéju dañoo ñàkk te mënuñoo fàggu yaa leen war a yor soo ko manee soo ko mënee kon su ñàkkee ñoom te sa wéjur saa su xëyee bu dee mën naa am dépense ñëwit kon yor ko jom rek waaye nag boo ko ne bàyyi àttana guma la it loola da ngay taxaw fu dëgër dëgër dëgër ci ci ci lislaam kon wala abawaanil muasiraani yunfiqu alayhimal ibnu bi yusrin yurfiqu loolu la siraj saali waxoon kon ni mu war a def mooy su fekkee moom daal soxnaam rek la mën a faj kon soxnaam la war a faj baayam faj soxnaam su fekkee mën naa faj soxnaam fajaale yaayam kon boi te baayam amul lu mu faja yaayam kon boi moom daa war a faj soxnaam rek fajaale wajur wu jigéen loolu moom mooy atteb diine leen li ci des nag mooy rafetal la njekk la jom la nga teel a wàcc say waajur nag euh, lépp lu jëm ci wàllu kër gi ndax comme bi nga nekkee tànk moo la yor yoral la yore la wax dëgg yàlla boo demee ba xaw a tane nag waruñ koo teel a aw waaye nag niñ bëgg a jëlee yi fi nag yenu ko nag mel ni waru gar la loolu nag wax dëgg yàlla comme diine ñu boole ñun ñëpp diggante waajur ak doom yi diine moo ciy taxaw daal lii mooy règle de jeu yi kon nag diine lañ ci war lañ ci war a déglu waaye say waajur bu ñàkkee te mënuñoo fàggu te nga man leen a yor gannaaw bi nga yoree sa bopp yor sa sa soxna da na boo ñoom nga ci war teg su fekkee àttan laaj bi stop nee na dañ doon takk ab sëy kay maye bimu jàngee faatixa ba noppi daal di ne diw mi di doomi diw ak diw may naa ko diw sangam doomi diw ak diw am ku ne ko déedéet sa waay bi nga jàngee faate da ngaa war na jàng salaatul faatixa yi mooy laaj naka la war naka la war demé wa mbok mi bu la neexoon sax do jang fatiha da ngay ñew rek dal ni diw doom diw ak diw wakil na ma ne naa ko mayal doom ji may na ko diw rek sey ba amna fatiha ja sakku barkela julli ci yoonu salam sàkku ay ñi tuddu sakku barke la jakka wala juma dañ koy defee sakku barke la mbolo ma cay euh luy gëna dëgëral séré rek waye bu la neexon nga yëkkat sa téléphone bo woté bo waxé rek sey ba amna yoy yëpp ñun suñuy aada da rafetal suñuy diiné wodd ko ba nga xamné ne buñ dé tak sey diko ja barab tedd la mbolo téwé ko ñu xamné diw foofu moom waxi seede kenn waxatu ko ndax jamaatun mustafida ci seede doy na sëkk beneen bu sopp di wax ca kaw ba ñëpp xam ne kon ñii ndekete duñu ay bokk yu tax mënuñoo sëy loolu lépp suñu aada moo ko indi ngir ñagee ko suñu diine kon boo jàngee fatiha képp maye baax na boo jàngee fatiha teg aaya baax na boo jàngee fatiha teg salaatu ala nabi baax na soo jànguloon fatiha waxoo dara lu da dikk rek naal ne diw mii daf ma wakkil ne naa maye doom ji ma may ko diw sëy dog na kon loolu rek mooy atte bi beneen bi na laaj beneen bi sopp ci ni mu ko laajee mooy comme li xew jamono ji ko xam da ngay da nga nekk ngóor jigéen ndax sañees na la suul ci armil jullit ñi waaw bokk mi góor jigéen daa bokk ci bàkkaar yu mag yi bokk ci bàkkaar yi yàlla tëkkoo ndax dañuy wax ne alkabair muy bàkkaar yu mag yi mooy bàkkaar yi nga xam ne yàlla def ne ku def mu duma la wala ku def ma génne la ci sama yërmande wala ku def ma dugal la safara wala def ñu tek la daan sangam bi bakar bo xamne ne neena na def ñu tek la daan ci daan yi ñu xam ci l'islam wala mu rëy ba borom xam-xam ne yàlla tegeewu ci daan waye safara la ci digee yooyu yépp ay bakar yu mag la mo tax daanaka borom xam-xam buñ koy lim li day gudd yeen yi nga xamne bakar yépp nak yu mag la ndax yalla ne la jaaral fi nga ne lay jaar loolu weesuwut bakar bu mag waaye yi ma wax nii ci gannaaw mooy li tuddee bàkkaar yi mag yeneen ci des mooy bàkkaar yi mooy yi nga xam ne lislaam tëkkewu ci yàlla tëkkewu ci safara wala génn ci yërmaane wala yu demee noonu wala mu teg ci daan nañ la caw wala nañ dagg sa loxo wala nañ la rey wala yooye lislaam tegu ci daan yooye yooyu la ñuy wax bàkkaar bàkkaar ndax fu ne lu mel ne fen rëy naa rëy rëy ba lislaam tegewu ci daan yii la mu wax mooy ku ko def daanaka safara nga jëm ubbi nga bundub safara moo tax dañuy wax ne ñaar rek ñoo yëngal arash mooy nga tudd baat bi gën a ci kaw suuf mooy la ilaha illallah boo ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah aras day njaayu di jaayu di yëngu yàlla na ko aras doo dal mu ne ko lurut nga jéggal sa jaam bi tudd baat yi kawe yu màgg yu rëy yi yàlla ne ko jéggal naa ko mu soog a nangoo dal bu nit waxee lu dëgg it muy danaka moy faaliwuma yalla te legui danaka man nga wax ñu bari ñi ngi ci 90% bu nit waxe lu deug aras day jaay di yingu yalla suko suko yalla ne aras do dal mu ne ko lu nga reub sa jaam bi def jëf ju bon ji bakar bu reuy bi bakar bu ñaaw bi muy wax lu deug yalla ne ko reub aras soko dal kon gis nga ko mata ñu suñu tuba ca ki mu ne haqiqatul kadhibi ikhbaru kama lam yakun sabitan bi al ulama وهو قبيح موجب إذا جلا لعنة الجلال فيما نقلا إذ لا يمين شخص إلا خرجت كذبته من فيه ثم صعدت فتبلغ العرش الذي أعلى المكان ببي فقال في أنا أنا كذبة فران نمكو وخيت بيدي كون فان mooy wax lu wuuteeg li am boo ko defee day dem ba bu nit waxaanu dëgg ñu la sooyax yaa ngi aras de waaw yaa ngi aras fekk loolu la ñuy jubloo cax kon bakar yu mag yi mooy yooyee ma wax yeneen yi mooy yooyee waaye ki nga xam ne daa def yëfi ngóor jigéen kooke dañuy jàpp ne def na bakar bu mag waaye ab julit la ki nga xam dafa def ak jigin jigéen yi jàpp ne def na bakar bok ci bakar yi gën mag waaye nag ab julit la ndax la bil azabi lil musii yuqtau wal kufru wa taxlidu anhu yumnau waaw loolu la loolu la siraaju saari wax ndax wa zubtidaain wa atizalin fusiqa min duni miriatin siwa naafiliqa aw kala aw qoola bil kulli yi rabbi alima min duni juziyaatihi aw jisama fekk sax mu ngi njëkkee ci wa man yamut walam yatub an wisrihi fawwit ilallahi jamia amrihi kon ki nekk ci bàkkaar yu mag yi ba faatu ci kenn kenn kenn sëñut ne yàlla da koy mbugal laa bil azab li musi yoxtaan waaye kenn sëñut ne diw yéeféer la ngir def na bàkkaar kenn sëñut ne bu duggee safara du génn ak taxlit loolu nee na yum naa kon ku def ngóor jigéen ab jullit lañ koy jàppee donte def na bàkkaar bi gën a mag léeg-léegi nga gis yenn réaction yit nga xaw koo rafetlu ngir ni muy tiitalee ñeneen ñi ci nekk fu ne man lii xew Kaolack man dama koo rafetlu li tax ma rafetlu ko mooy comme danoo am état dénk ko suñuy mbir te taxawaay ba rafetut bi bi nit ñi liggéeyee ay loi andil leen ko faale wuñ leen maanaam jéem a xool lu nekk ci biir loi yi sax defuñ ko waaye lañ def mooy jël yëf yi classé classé ca gannaaw bi ñu waxee ñu leen duñ ko xool wala duñ ko yóbbu ci nangam duñ ko yóbbu ci député nu xool ko yu demee noonu maanaam taxawaay yu suufe yooyu taxawaay yu ñàkk respecte sa peuple moo fi indi yii fu ne ñii liñ def sàtte réew mi nangu ko sàtte lislaam nanguwu ko waaye li ko fi indi mooy ay njiit yu rafet seen taxawaay rafetul te loolu it lu yéeme la ndax boo jiitee nit fexe ba di leen dugal ci liy jur fitna da ngay dugg ci waxaani sar sama dama waxoon ne yàlla képp ku jiite aw nit ci sama xeet rafetal jiiti nu jiit jiit jiite jiite win wa yàlla na ko yërëm képp ku jiite sama xeet faale woo leen di leen doyadal di leen fitnaal den leen mbugal yàlla yàlla na ko fitnaal yàlla na ko mbugal loolu alayhi salaam moo ko ñaanoon te loolu nag kenn génn ci képp koo xam ne jiite nga daal xoolal bi su fekkee faale woo def la la neex di fitnaal di mbugal di caw di tëj di rey jàppal ne waxee alayhi salaam jo tôt ou tard lu yàgg-yàgg dina dal ci kaw ndax euh, wala taxsibanna allaha gaafilan amma yaamal zalimun kon loolu mooy àtte ba ci war mooy ab jullit la kon li ñu war a defal jullit ñi lañ koy defal laaj bi topp nee na ku takk jabar ba noppi mu xam ne dafa dafa ëmb mu fase ko un mois et demi rek mu am doom ndax bu pare dina ko mën a takkaat ma ne ah, loolu day lu yéeme la takk jabar fekk mu toll ci ay huit mois te xamoon dafa ëmb ah man naa nekk rek xëy na am na ñoo xam ne amuñu biir waaye lu ci mën a xew daal moom boo takkee jabar fekk mu ëmb te xamoo ko woon ca ba koy takk boo ko fasee ci mazhab Malik bu amee doom di ko mën a takkaat bu amee doom ba daja jeex di bu amee doom rek di nga ko mën a takkaat ndax bu amee doom dañu wan mooy wanal ne dara nekku ca biir ba laaj bi stopp nee na day leerlu hadis bi abu hurayra nettali mu ne alei saatu dafa wax ne inna Nasa yuxsharuna yawmal qiyaamati ba xadis ba jeex mooy nit ñi yàlla neen danaa dajale yawmal Qiyam. ci pénc ma nga xam ne kenn du fàddu nit ak ne ah taalama kuntum tukallimuuna wa ana saakit yàgg ngeen a wax lool coow rek pinc moo dem coow le ne cobbay nga xam ne daanaka dañoo mujj bay jëf nekkee wax yàlla na leen yàgg ngeen coow yàgg ngeen wax di débat maa ngi noppi rek waa ana saakit maa ngi noppi rek faskutul yow ma tey nag yéenay noppi xataa atakallam maay wax tey yeneen noppi maay wax dama yëkkati ci waxin aw askan ngeen bañ daal ni yéen seeni askan moo gën a tedd askan woowee askan wi yàlla doon wax mooy inna akramakum indallahi atqaakum yàlla nee na ku bokk ci askanu ragal yàlla yaa kawe wane na askan wi mën a doon gaa yi ne déedéet ñoom diw ñoo gën a kawe ñoom ñi sant diw ñoom diw ñi nàngam ñoom ñi seen maam def nii nangam ñooñe daal ñoo gën a foor ñi ragal yàlla da gis léeg-léeg nit ragal yàlla lool mu wóor la ne moo gën a ragal yàlla diw mii waaye sant sàngam wi mooy tax nga jiital ko bàyyi nit kee te yàlla dana woon nga jiital kee ragal yàlla yàlla ne yàgg ngeen a jiital seeni gaay bàyyi samay gaay tey nag maay jiital samay gaay te bàyyi seeni gaay ak ba addis ba jeex loolu alei satu salam ngi ci jubloo wax ne yu bari yum mu tëral dañ ko fee bàyyi nekk ñun ci yiñ tëralal suñu bopp kon loolu moo fi di doon ci laaj in uridu illa al islaaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum